Liberté 6 Mamel Mamel Ngor Nord Foire Parcelles Assainies Rufisque Scat Urbam ak Yoff ci région yi am nañ ci ñett yu tëddee nii ñaar ci Mbour ak benn ci Ziguinchor juróom-benn fukk ak juróom-benn si malade yi entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés niki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñaar fukk ak juróom ñoo nekk réanimation juróomi malade ñàkk seen bakkan démb talaata juróom-benn fan ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na fan fanweeri junni ak juróom-ñeent ak téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fan fanweeri junni ak juróom-ñaar. ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wér nañ si junni ak juróom-ñaar fukk ñoo ñàkk seen bàkkan mu des ñaar téeméer ak juróom si lalu hôpital yi ak ci loxo docteur yi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen jana di ñaanal ñu des ci hôpital nekk ci hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan pañu génn ak jàmm